jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax comme ni ma leen di ko chaque jour rek wasaare lépp loo xamante ni ci làmb lay dox wasaare làmb doo koy fekk andil leen ko jox leen ko yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy suivre ci wasaare làmb te nag ñoo ngi ci buun seet ki nga xamante ni mooy rëm su ma rëm xale bi nga xamante ni waa buun bu jugee waa buun jóg bu jugee waa Fass Mbao jóg mu waa daje ki nga xamante ne nag mooy deux Giga xale parcelle bi ndaanaan bi làmb ju neex la ñaari njool la lu may wax naan làmb njool i laa ko tuddee ku ci daan dem ku daanu xaar waaye tey nag mbokk yi fii ñu leen fii ñu ñëw fii ci buun fi am ah, lépp dina fi am ndax gars yi ma gis nii nee naa leen tey tànn biir ñu am open press yi def tey tànn biir am fi waaye defe naa ne tànn biir la ci mujjee ndax rem mi ma gis ni mu tàmbalee ni beneen affaire la xoolal ma ko ñool mu ndaw mi di leen jox dig daje lépp li fi am dee leen ko jàllale ci Wassare Lamb سماك مردي جاي يا لي جاي اللي جاي كي موي مامور Ama nuyu naa maa lay fay mais nu mu demee noonu ci sa daa nice ngeen. merci waay. mais tey naka ngeen di waaj open press. combat bi ñu pare ñu pare daal rëm daal na na taxaw dëgal boppam loolu lañ koy sant. mais am 2 Giga xale parcelle bi. ah. ma ne ngeen am 2 Giga xale parcelle bi. 2 Giga 2 Giga ñoo ko mën. xoolal xoolal mbër lu muy entraîné. nee na ci bés bi la naa yokk dërëm dara du yoon. ah ma fi yaa dara du mag ah ma fi yaa ndey dara du mag ah eh. eh, tous tous fi eh. yaa dara du mag. Mbaam ñu ngi koy fi yaa sayet bu mag. ma i yaa sayet bu mag ñoo ko fi indi rëm ma fi yaa sayet bu mag. kaa ñu dem fii. Mamo ziar maagal nañ la baay. Eh, ci loo ne na mën a. taw feex bu baax nii. war sëriñ baax ñu gis rëm ñëw tey def open press nga lan la. waaw sama doom nday la rëm xam nga rek ñoo bokk mbedd Fass Fass Mbao xam nga. ñu bokk saal bu ñu entraînement mu nekk nit ku baax. xam nga li mënul ñàkk quoi il faut ñu ñëw xam nga jàppale ko ñaanal ko yàlla may ko ndam. mais mu dajeeg 2 xam nga 2 Giga. 2 Giga tous du pousse du passe war na sëriñ baax booy dafa pare. xale bu ndaw la maagul. loolu nga yaakaar am doole làmb ji amul xalaat kuy xalaat nga toog sa gaale ñun xalaatuñ dañuy ñëw faxas joxos dem biri bulldozer na ma jël bulldozer bulldozer na ma jël wala daam seen bëgg seen boo yooyu nañ ma jël baa ma sonn si combat spéciaux yi parce que Serigne Bamba wala Alioune Seye 2 may ma sens parce que Serigne yoo xam fi dara lu nooy mënu ma jeexal booy bëgguma lu nooy yàgg naa la ko wax loolu daal waxoon naa la dama koy duma dama koy daan loolu waxoon nga ma. teewloon naa la combat bi dama si jël sama temps moo ngi nii tey lépp mën na ñoo ngi xool leneen ma sonn si spécial dañ ma jox grand combat di nuyu sama doomu day landing ak Fallou mooy loolu. yàlla ñëpp am jàmm Fass Mbao xam nga ñu ñaanal Boy Maar yàlla may ko ndam. siyaar nañ la. fi mooy mafia sareet bu mag bi wala. fi mooy mafia caw sa xiir gaa yaa ngi nii. mafia caw sa tey nu waaj open press. waaj rek comme dab rek ni ñu ko waajee rek. am deux Deux Giga luñ koy wax nañoo jël si maanaam lu ko rëm indir rek du yàgg taxuñoo jug dañ koy pëtam pëtamee rek jàll dem seeti leen. Deux Giga nekkul ku ñu pëtam pëtamee de. Ah, ñun wëruñu ko sax leneen la ñuy wër leneen mi ngi suñu kanam mais du Deux Giga. bilaahi. kenn ziar. delloo ziar baa na xamu. doone sant alhamdulilah lépp. naka ngeen waaj open press. waaw instant bi ñun moom pare nan ma pare na arbitre la ñuy xaar mu wàccee loxoom ñu du ma ko daan ko dem xooli leneen. loolu du yomb de. dafa mbër ne ko mu wàcc dafa mbër na. génn ci deux Ziga noonu. deux Ziga dama koy duma daan ko loolu leer na ba pare dafa na wàcc. am ma fi taw ah, sa sëñ nii gars yi jaar naa leen a ngi ci jàmm da ngeen waaj open yàlla ko yàlla defal jàmm may ko taw feex rek may ko ndam bëri sax billaahi loolu dix gaynde ziar lépp ah. waaye gis nga rek bëgg si kontaan bi xam nga rek moo loolu noonu mbër mi xam nga ñëw yaatal koñ bi ba mu yaatu ñu ñëw ànd ak moom bàyyi suñu liggéey ñëpp ay chauffeur lañ ko yaa ngi comprendre ñu bàyyi lépp bàyyi lépp ànd moom ànd moom muy dem barke sëñ Ba amul dara lu ñu yoolee bu ñu ko naree yoolee tous. gërëmaat lañ dëkk su ñu jaar naa leen waaw daaw na la siyaar bi baay mais tey naka ngeen waaj open press dañuy waaj waaj combat bi rek billahi walaay ba ñu si dërëm waa mafia tous tasara ngi nii mbedd faas alkaana bu rëma ngi nii dara du xew tous ragaluñ dara eh fi ñu jëm laa xoolal ragaluñ ko tous dara du xew deux ziga ngeen am de deux ziga ani yaa ragal deux ziga eh, ñu la waa aliya moo ak ay mbokkam dara du xew nag rang muy gën a gaaw mafia mbedd faas da am luñ bëggoon jàllale waaw lee lan la kaagu lii lan la kaagu bàyyi ko bu ma bàyyi ko bu la ñuy ñaanalaale yàlla na ko yàlla xaaree àjjana laay yëy yoroon ànd guddeeg bëccëg naay suñu la mooy loolu borom baax la suñu borom moo ko jël rëm ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam ma fi yaa bàyyi ni tu tasar waaw terk naa yaay ni dara du xew di ñaanal laaj yooyu yàlla na waaw fu mu jógee yàlla na ko waaw man lenn laa am lu may wax mooy rëm suñu traite la bu jógee dañoo bu yaa am benn phase duñ ko seetaan duñ ko bàyyi benn yoon. mais mais deux Giga ngi ne. déggoo lu ma wax deux Giga day xaar. kooku day pas si ginnaaw la xalaat ñàkk la loolu Colos bul si xalaat dara. kooku noonu xam nga day pas kooku day pas jamono neex deux Giga day pas. ba jàppee di ko def. naa la. ziar naa la mbër. ci loone. sant yàlla bu wér a wér. mais foo toll. ñun pare nañ saa bi arbitre la daal la ñuy xaar pare nañ bu yàgg. xam ngeen deux Giga. bu baax. lan nga xam lan nga xam ci xam naa ni mbër la nii rek day bëre loolu rek laa xam ci moom ah. xam nga ay qualité. non man moom wax dëgg yàlla du ma faral di di qualité mbër mais su ma amee adversaire dinaa lijjanti lu mu mëne quoi. mais naka ngeen waajalee 2 Giga. 2 Giga. 2 naka ngeen waajalee rëm. maanaam rëm moom état bi boo xoolee xam ne pare na. moom pare na si lépp bu dee xeex pare na bu dee bëri pare na te pare na si entraînement tamit kon lan moo si des mooy arbitre ciblé yàlla mi nga xam ne mooy ma ndam mu may ko ndam waaw ah, loolu moo des si combat bi daal. dina moo ngi waat xeex. ah. xeex bi ma ne yéen a pare ngeen. déggoo man la pare nañ si xeex pare nañ si bëre moom lu mu andi rek fekk na pare nañ. jàmbaar si waaw delloo nan la ko. yaa ngi ci jàmm. maa ci jàmm maa ngi sant. naka ngeen waajalee na ngeen waajalee rëm. rëm waaw waajalee ñu waajalee mbër rek. instant yii pare nañ tous les parents tous les tous les formes pare nañ ci lépp instant bii nii waaw di xaar le tour rek yàlla suñu borom mi xam moo am ndam mu may ñu ci barki yénante bi di ko ñaanal kullu mbër bu dëkk yëmbal Kër Massar Boune di ko ñaanal mbër yëpp ba ci suñu tëdd di ko ko ñaanal di ñaanal bàyyi njëkk si visual mu jugee di ñaan yàlla nekk vidéo yi kawe kawe kawe ci moom ci barki yénante bi ah jaajëf mais nuyu naa maa ngi lay fay yaa ngi ci jàmm maa ngi sant yàlla bu ñu gis seen doom ñëw di def open press ngeen génn ñëw toog la doon seen teewaay dafa nekk xale boo xam ne dafa ne yàgg mbedd faas fi la juddoo fi yaroo man nag fii laa nekk si koñ bi ñoom bi ñuy xale lañ ma jël ma nekkoon seen maire di leen jàngal làmb mbapat bu ne def nañ ko fii bari woon yow kay kon yow da ngay dund làmb yàlla xam na ko nag boo ko waxee tey mu xam la ko maa nekkoon seen maire fii ma jóge fi dem yàlla def nag lii tey yàllaa ma si boole rek ma daal di ne xale damay dem seetaani CG maa indi Reum nekk xale bu baax moo fi njëkk a organiser mbapat ñu bari woon fi lool nag ay xale yu ndaw ñu jël ma defoon fi ma nekkoon seen maire ma nekkoon fi defoon fi mbapat bu rëy yàgg na nag du tey waaye daf ko yàgg bëgg nag. gën a neex ci moom. li ma gën a si neex si moom dafa am fulla am fayda dafa gëm li muy def mooy li ma lay wax nii rek dafa yàgg du tey. moo tax ma ne li ma koy maa ko xam sama xol bu ci góorgóorloo rek am ci fulla ak fayda na mu ko jàppee woon ba léegi du ko rëcc mu ndam rek ci kaw ci kanam yàlla baax na. jaay ziar naa leen. delloo ziar bu wér kay. mais tey la ma fi doon seen teewaay open presse. waaw jàppale suñu rakk jàppale suñu frère jàppale suñu doomu nday jàppale suñu lépp di waajal la trois jàmbaari daa ngi nii kii déggoo li ma la wax waneegul boppam ci làmb xamaguñ ko après la ñuy comprendre après. xam nga ki muy dajal ah? xam nga ki muy daje. xam naa ko bu baax. 2 Giga 1 la lañ koy mujjee soppi. nee na da koy def 4 de. non 1 Giga lañ koy mujjee def. 2 ah. Giga dafa tardé. carte mémoire la 2 Giga la. 1 Giga lañ koy def mbaa ñu def ko 128 méga. est ce que mën ngeen ko def 128. déggoo ma de ña muy daan du ñun. lu leer laa la bu taxawee combat bi du def une minute. xam nañ liñ préparé bu baax. te kii du ñun ak moom. déggoo ma de après le 4 ngay comprendre. amal na trois la combat. baar la quatre ay nettali la. déggoo ma de jàmbaar jaay nii lu ma la wax takkal téere déggoo ma de sëñ Babacar ñu yéem lu leer la la wax tam samedi ngay comprendre. affaire bi rëb la. champion nuyu naa la. ay lay fay. maa ngeen waajalee deux Giga. waaw combat bi ñu ngi waajal bu baax. waaw di jaana suñu mag waaw suñu rakk mu am ndam le 3 n'est-ce pas xaw ma la 4 incha allah deux Giga xam nañ ñu mu waaw mooy loolu di xale bu ndaw la le kii xale bu ndaw la foowul barki sëñ Bamba bu ko jàppee rek lamb ji jeex billaay incha allah bu neexee waaye noonu ziar gaa naka ngeen gisee tey seen mbër. waaw kon loolu li du lamb barki maam Serapha du lamb. billaay lamb la ñaari xale yu daje. du lamb booy ma ko mën moo ko bu toole barki sëñ Saliou. billahi. deux Ziga liggéey doo dégg ma la boo déggee da nga naan Alberto bu ginnaaw raay bu Pikine. dina xam la man ak ñoom la parcelle xam naa leen bu baax osé connaît wala déggoo ma boo bi dafay yaru tey. waaw di di préparé boo yëmbal yëpp di ñaanal yàlla boo yëmbal yëpp yàlla may leen ndam yu sedd guyu mais rawatina ji rëm moom parce que daa am fu mu toll ci ñun am lu mu def ci ñun ñu ànd ak moom fu ne foo xalaat ànd nañ fa ak moom jëli lu ne façon drapeau bu ne jël nañ ko kon deux Giga mënu ñoo yéem supporter bu si wóolu lu muy wax ni na teg jabar ba teg sama jabar barki maam Serap Fall. mu teg jabar ba teg sama jabar. Eh, te nga amee dugg ci lu. barki maam Serap Fall. supporter bu wóolu sa bopp rek sama jabar. supporter deux jours na teg jabaram nga teg bu wóolu sama jabar. 2 Giga du pousse du passe. Eh, ñun dañoo xam 2 eh. Giga. guddeeg bëccëg ñoo doon nekk parcelle. moom boo gisee dama xam. Eh. parcelle ñoo doon nekk guddeeg bëccëg. déggoo la bilaay walaay wa taalaay. 2 Giga pour te ndongoloo moo ñu tax a jug ndongoloo. ndongoloo bu Grand Médine. ñii ne ndongoloo ñii ndongoloo ak 2 Giga ñu ngi écrit sa sakku xam-xam. Grand Médine gépp laay jaxase doo ko génn parcelle Grand Médine gépp laay jaxase doo ko génn. de ndongoloo moo ma dërëm a ngi noonu taalibe Bàmba bi waaw mbokk yi xooleen ambiance bi fi am waaw thank you jërëjëf Rëm ñu ngi lay nuyu di la siyaar bu baax tey sa open press nga gis waa yëmbal ñu dëkkul yëmbal sax mën naa ne ñëpp génn nañ tey ban yëg-yëg nga am waaw onze bila jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Seex Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul waaw onze bila maa ngi nuyu ñëpp ku si nekk ak sa tur ak sa sant avant tout damay sant presse bi seen service bi naagis na quoi di sant presse bi di sant maire Konia aw ma seen fay ak boo yëpp képp ku fi teew daal maa lay sant xam nga di la gërëm mooy loolu di la sant di la gërëm mooy loolu tey sa open press deux Giga sa adversaire ma ngay def fële ca parcelle tey instant yi ban état de forme nga nekk. non man instant yi mooy man daal waaj xam nga ànd sama mbokk mooy loolu. di ñaan daal suuf bi suñu borom defaral ñu ndam doole say mooy loolu. combat bi combat capital la pour yow lan nga leen di tontu. non man. acca acca. non man moom mooy ma la waxee man moom pare naa tout di xaar le su lee suñ borom defara man dem su doolee see Ibra waaw incha allah naa ko bu baax ndaanaan la dama koy nangu ndaanaan la nan nga xam ci moom champion la wax sa mbaax waaye waaye du dara sa mbaax mais rëm lay dajal de rëm taalibe bamba bi taalibe bamba bi doomu benn faa seen mooy jub dañoo gis yéen ñaar da ngeen xaw a tolloo taay est-ce que du am bi naka la naa demee sa diggante ak moom ah man moom pare naa tout. bële dóor la moom man daal moom lu muy indil fekk ko fi mooy loolu. mais su diggante yow moom xas-xas loo bi lan la dafa am fu ngeen mës a tase wala. non c'est la première fois sax lañ door daje. lan moo tax ngeen doon neexal kaw ak sax. non moom daa xaw a bëri wax quoi day wax rek. moom nee na moom nee na moo mun quoi loolu la wax. nee na moo la mën waaw le trois dina leer. est-ce nga nangu loolu. non non nangu man sama man sama morom gis ma sama morom góor yàlla moomu wóor na Serigne Bamba man mooy rëm bu rek. foofu deful dara dëggal boppam leneen nga gis war na Serigne Bamba. man sama combat day gaaw. ba musuma bëri combat bi musuma bëri combat deux minutes. combat une minute seconde. dañuy nekk góor jigéen ñun bu ñu ko nangulee est-ce que mën nañoo xaar rëm ma bëri woon ak Lassander rëm ma bëri woon ak carrière bii mooy gën sax rëm mu bëri carrière bu bëri aatu bii mooy gën a gaaw rëm mu bëri bëri la sandeer bi mooy gën a gaaw kare gis nga ko gowal gowal bi dama ko jël ñëpp ne moo mun ma daanaka 30 secondes parce que Serigne Bamba jël bu gaaw laa xam nga duggoon parcelle am loo fa jëlee duggaat tamit xam nga combat bi ban day wala non combat bi man déggul ma la moo essant yi wax ju bëri mënu ma ko quoi damaa bëgg bële trois la mu na ma samay supporter wër a Serigne Bamba booy dañoo sonn xoolal booy seen folokaas yi booy du nelaw suba du nelaw ngoon loolu bu ñu xëyee sërëm lañu lañu lañu xool sax sant ma fiyaa sele bi mbambi bay jaam moo dirigé ah ma fiyaa sele bi mbambi ram sele bi mbambi lekk gaa naan mandi non man ma man damaa mun bëri moo ma sama bopp de billaay maa ko daa ko man. kan moo ëpp mbooloo. man nañ ba bis ba instant li ñuy jëm. gars yi. ambiance. rëm nga wax de rëm. la ma répété fecc ma ko de. Ah. waaw dama leen ñamal lii rek mais lu tubaab lu gën a amee gis. Ah. billaahi. man ku ma xam damay ambiance man. man ku ma xam xam ne damay ambiance. instant sa combat yi moom la ñu coow. parce que promoteur bi instant moom la ñuy coow barke Bamba wala yoo xamoo man ambiance moo tax promoteur di ma tëggal ak di mobiliser man su ma amoon supporter kon man moo duggee si làmb yàggul mais dëggal ma su ma amoon mafia mafia bu disu woon kon du ma dem ñoo xam ñoom nekk si làmb may may tax may ñëw di bëri si ñoom spécial barke Serigne Bamba ma grand combat soo ñu ma mbooloo gars yi ñëwuñu de war na Serigne Bamba bu gis nii gars yi ñoo joobi mais nga gis lu garaaw bilaay lan ngay wax promoteur bi ak ban message ngay lancer. moom Sam Sam moom Massa spécial moom borom. man Sam moo ma génne man sama combat moo ko tëgg di ko ñaanal jàmm tamit mooy loolu xam nga di ko ñaanal jàmm moo xam lu mu dugg si biir xol na suñu borom defaral ko mooy loolu. waaw man moom ku ma xam-xam ne non violence laay dund ma fi yaa Sélé bi Mbambe ah waa Déggo ah ñoom Seye ah ñoom Gora xam nga. su ma lemee damay jun ñoom Papa xam nga ñoom maam Cheikh waa Thiaw Sakhir aw ma seen fay la waa Thiaw sa ñoom El Hadj xam nga mooy loolu tamit Tafa ah. deux Ziga lu mu taxaw dëggal boppam mu bëre mu du ma ko daan ko su doole séeréer la. eh ASL yi man damay jëf de man damay wax di jëf wóor na Serigne Bamba. mbokk yi gis ngeen li leen àndoon ci Fass Mbao seet si ki nga xamante ne mooy Reum open press bi neex na am na ambiance mbokk yi nag di leen wax. wàcc leen ko ndax làmb joo xamante ne làmb ju neex li ma koy waxee chaque jour ñaari njollo yoo xamante ni kenn ku ci nekk doo may sa morom da dinañ jox dig daje ba samedi incha allah jaa ngeen jëf